salaam salaam salaam waa Sénégal yéen ngi ci biir Pass TV ak vivian waxoon naa leen ko Paasan waxoon naa la ne dangay xew yow par force am nga xel bi macha allah am nga xalaat bi wuyu ma feeling paaj Paasan ay Pass Pass TV la ñu naral Pass nag kaay ma la Sénégal ba may tuddee Paasan paas boobu kenn xamagul ndax paas dina am mais tey Pass am na wuy ma Pass TV ca kaw ca kanam. loo leen bëgg a xam dugg leen Pass TV balaa maa kontaan rek Pa sama frère Ndiab daal ne xoolal résumé. <laughs>